الجوع قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa bi atharihim ila yawmi ddin mbokk yi ñuy seetaan ci Hidaya TV ci jàppandalu la maison du Coran ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal di leen ko balu di ñaan yàlla boole ñu jéggal bu ko defee ci mbaaxu borom bi rek ñu ñëwaat tey ci suñu juróom-benneelu leçon mu dellu ca fukk ya nga xamante ni moom la ñu tuddoon muy axlaqul mafquda te suñu maam tuddaloon ñu leen kon tey yaakaar na buñ ne yumnun wa xubbun wa rahmun maadilun wa xaya sabrun sabrun as sabru boobu la ñu war a waxtaane te mooy muñ te mooy muñ baat bi nag bu ñu ko tuddee da nga yëg ni baat bu ñu miin di wax la waaye ndax la tax ñu naan muñ ma nga fa ba tey wala nekku fa loola mooy li nga xamante ni mooy la fay manqué loolu mooy tax mu nuroog moromam yële ci jële guñ leen fi jële ba tax mu néew te bari woon ci génération bi leen jiitu woon te mooy ñu yëg ni ci jamono yonent bi muñ ci mboolem domaine yi doomu aadama war a muñee rek dafa bari woon lool tasaraatoo lool yaatu lool ba ci bi fi jóge ñeneen ñi ci topp mu mel noonu ba ci ñi nga xamante ni ñoo ci toppaat donte que ni buñ koy wax mën nañu wax ni ci jamono bi nga xamante ni ci la ñu toll léegi ak yi ko li ko jiitu tuuti rek ci la yooyu di commencé di wàññeeku mu ñëg nekk lu am solo ndaxte borom bi subhanahu wa taala dafa jël muñ boole ko ci jikko yu kawe yi di ko digal jàmm bi ngir mu koy taqoo ci fu mu toll ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy euh, rëy jikko yépp yàlla tagge na ko ci muñ ña ko fi jiitu woon tamit muy mbokki yonentom yi alayhimu salaatu wa yàlla daf leen a tagge ci muñ nit nag bu ñu jëlee jikko bu baax jikko bu rafet jikko bu yiw tagge ci sa kilifa li ñu la bëgg a yëgal mooy ni nga fexe nuru ko moom nga fexe nuru sa kilifa ci jikko yu yiw yi nga xamante ni incarné woon na ko ko defee muñ mooy lépp loo xamante ni wàcc na ci ñun te naqari metti soof sax kenn buggul mu am loola lañ lay wax nga def yittey muñ ko nga yëg ni kon la koy def mooy xol waaw ndaxte moom mooy recevoir li nga xamante ni si mooy yëg-yëg bi doomu aadama mën a am moo tax bis bu demee ba am lu ca tab bi lu neexul doomu aadama booba noona ñu ni ko na def yitte ba nga xamante ni la ko naqari du gaañ ndax gaañ gi mi gaañ mooy am lu wàcc ci kaw rek nga jëfandikoo làmmañ boo paree nga réccu lool am lu dal ci sa kaw neexu nga jëfandikoo jëf bu demee ba jëf ja paase rek mer mi giif rek nga yëg ne jëru ko woon moo tax toujours rek boo nekkee njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu lay wax ni la ngay def yitte di dimbali ko muñ moo tax yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ak ñi nga am wastainu bi sabri am na yoo xamante ni bu yegsee rek jimbandikoo leen muñ ndax loola rekk moo la ci mën a génne bu ko defee yàlla jàngal ñu ko ci koor ni ñuy jànge muñ ci koor mooy ni moom muñ sax dafa ko ay xaaj ci ni ko boroom xam-xam yi seddali séddale ndaxte bi ci njëkk as sabru ala taati mooy jaam bi muñ ci ni muy toppe borom bi subhaanahu wa taala yàlla moo la diggal nga jaamu ko waaye danga yow doomu aadama yaa yëg ni li ñu la digal nekkul lu yomb ñu ni la comme yombul nag waaye li la yàlla teg moom lu mën a nekk la ndaxte laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha kon li mu xool ba teg ko ci jàmm bi ni ko nii la loola lu doomu aadama bi man la mu des nag moom mu yëg ci ak diis ak ak metti ñu ni ko kon dimbali ko muñ nga yëg ni man kat dama woor damay bàyyi lekk damay bàyyi naan ñu ne la ñaar yu yomb la nag bàyyi lekk bàyyi naan ñi nga xamante ni bokk ngeen diine sax wala gëmuñu dara sax loola mën nañ ko ci ay heure ñu ni waaye lu mu métti métti rek na ko booleeg muñ boo munta muñ doo bàyyi lekk boo munta muñ doo bàyyi naan moo tax bu koor jub see rek nga dégg feebar yi di génn waaw médecin bi nee na ma duma ma mën a woor man kay biñ ma seetee ba xool ma lañ xam ni wax dëgg yàlla koor gi attanuma ko waaw keneen jóge fee keneen jóge fee ndaxte inspiration bi ñu am moy ni dañu bëgg di fowe loo xamante ni ëpp na di fowe te bu ñu amoon muñ rek def ko ni ko seen moroom yëpp di defe ndax li la yàlla jox séddale ko diggal la ko nga bokk kook say moroomi nawle say moroomi jullit say moroomi gor métteetul boo ci wéetoon sax métteetul ndax ndigal la rawatina ba nga ca wéetul bu ko defee nga yëg ni julli sax yombul kon ndekete bu fekkente ni awma ma yitteeg muñ bu jotee rek dina fekk ma nekk ci laneen ba duma tal dem julli ji li waxtu wi nga xamante ni moom la ma yàlla jox ci waxtoom wala bu ma koy defee du ma ko def ci mbooloo mi ndax am ma muñu dox ba yegg ca jàkka ja kon loola liñ la ci yëgal mooy ni jaamu gi ngay jaamu yàlla sax dafa jafe kon defal yitte nga muñ ba nga xamante ni jaamu googa dana oyof ci yow beneen bi ci topp mooy as-sabru ala al aw ala al-ma'asi mooy gi ñuy mooy yàlla yàlla mooñaale ko ak doomu yàlla ak ak ak ak ñi nga xamante ni si ñoom ñooy doomu aadama yi yàlla mooñaale moo mooy gi ak ñoom waaye wutal leen yooyu tax ba duñu ca tàbbi waaw wutal na leen ay garde-feu garde-feu yooyu noonu mën na dimbali doomu aadama ba bu ca tàbbee rek mooy ni tàbbi na ci loo xamante ni néexu ko mu tàbbi ca bu ko defee bu boobaa bu delloo rek yëg ni def na lu ko metti mu jéggulu yàlla jéggal ko ñu ni la kon nag nit ki dafa war a muñ ba du mooy borom bi subhaanahu wa taala ndaxte am na yu ci bëri yoo xamante ni boo ko jëfandikoo rek da ngay yëg ni yaa ko sabab lu jëf ko toog nekk ci deru jaamu aadama yi di leen jëw lu mënoon a ñàkk la boo defoon yitti di muñ ba doo moye yàlla ci noonu toog nekk ci eh, jikkoy doomu aadama yi lañu mat matlee nga nekk ci te yëpp nekk xeetu jëw mu ni benn bu ci nekk rek boo defoon yitte di nga ko fa bàyyi ngir jaamoo ko yàlla waaye yitte jëla koy dimbalee mooy nga yëg ni dafa metti yombul bu ko defee boo muñee ci ni ngay toppe yàlla muñ ci yi la tere ba doo ca tabbi wala boo ca tabbee rek gaaw delluwaat léegi nag beneen bi ci des mooy ni nga def li ñuy tudde as sabru ala al balaya al ardiya wa samawiya ndaxte am na musiba yoo xamante ni ci suuf si ci suuf lay jóge sa benn mu jullit mën na la tooñ ci sa ci sa njaboot wala mu tooñ la ci sa alal wala yow nga jëfandikoo loo xamante ni dana nuru yooya ci tooñeel benn bu ci nekk bu dal ci sa kaw nga yëg ni njabootu borom bi subhanahu wa nga te yàlla ay nattoom mën na ko teg ku ko neex bu ko defee nga doyloo loolu muñ ko bu dee feebara nga muñ yëg ni feebar bu la musa dal rek dal na sa morom bu dee ñàkk nga muñ yëg ni loo ñàkk-ñàkk am na ku la gën a ñàkk waaw bu dee xiif nga muñ yëg ni loo xiif-xiif am na ku la gën a xiif bu ko defee muñ googu moom la ñuy yóbbu ba ca jàkka ja yenn saa yi nga gis koo xamante ni ay nawaafilam du jeex da koy dagg te dagg gi koy dagg ci bakkanam la koy teg am ku dul julli ji gee te ñàkk julli jëm gee ci bakkanam la koy teg te mi ngi ci weeru koor ndax lan moo tax mu teg ko ci bakkanam mooy ni moom yëg na ni waa kër gi réeraguñu ndogooguñu te ndogu li moom xiif na kon na yàkkam yàkkamti na ba bàyyi fa la ko yàlla sant ngir di dabu loo xamante ni bëccëg bi yëpp muñul na ko te mooy ndogu li yow ndogu li muñ nga ko bëccëg gi yëpp ndax lekkoo ci naanoo ci heure yu ndaw dese la nga war a jox yàlla di profité ci weeru koor gi nga xamante ni weeru bonus la ngir ngay fexe bay di gën a bari le sa crédit di gën a yokk boo fa ne ñukk farata yi muy nawafil yi muy muy julli géegi bàyyi fa nawafil yeeg yeneen ya ca topp boobaa dañuy yëg ni boo amoon muñ di nga ko mën a tenir ba mu jeex te lële do du la raw bu ko defee kon yooyu yëpp ya ñu ciy dimbali mooy ñu muñ ya ñu ciy dimbali mooy ñu yëg ni am na natt yuy jóge ci suñu digganteeg suñu morom yi waaye benn bu ci nekk bu yegsee rek ñu yëg ni borom bi subhanahu wa taala natt nu mu toll rek teg na ko gor ko defee góor googu muñ yiy jóge ci kaw asamaan yenn saa yi nga gis ñu jékki jékki rek taw bu bari ñëw kenn ku ci nekk li Serigne Cheikh di wax ay waay sama koog la ay waay sama àndaar la sama teme ba dem na nee na nga xool loolu doye di doomu aadama li nga xamante ni yow bu fekkonte ni mat nga dara rek da nga war a tenir loolu ba tenir neen mais bu bu ci ñëw rek nga tàqalikook sa sago bu boobaa da nga yëg ni kon am na loola manqué te li la manqué mooy ni li nga waree a jëlee ci école yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dolli ko mottalee ko sa yar te mooy nga fexe ba fépp foo xamante ni mën nga fa tàggate sa xol pour mën a am muñ nga nekk ca kon ndekete muñ googu dinañ ko jàngate ci biir koor ngir xiif bi ñu ciy jëlee ak noppi gi ñuy noppi ci lu ci suñu suñu yoon newul ak góorgóorlu gi ñuy góorgóorlu di topp yàlla ci nim ñu ko digalee bu boobaa yooyu yëpp mooy yi ñuy boole ngir bu koor jeexeet ñu daj muñ nañu ko yàlla defal kon loolu mooy beneen leçon bi ñu doon jàngale ci muñ wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala وبركاته قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل